léegi bu ma ñëwee si dialogue du peuple bi euh, boo gisee ñu lancé ko c'est parce que dañu gis ne président de la république ba mu lancé dialogue am ñëpp dañ ko doon dëkkal fu nekk dialogue deal la dialogue boo xamante ne c'est pas inclusif parce que majeure partie de l'opposition bokkuñu ci xëy na yenn figure ñu soxla ñu gis leen ñu bokk ci ci dialogue boobu gis gisuñu leen ma jàpp ne euh, le vrai dialogue c'est pas entre acteur politique et dirigeants de de de de société civile et cetera mais le vrai dialogue du peuple c'est le peuple lui-même qui s'exprime. et qui est le peuple. le, le peuple c'est tout citoyen tout citoyen que vous soyez de l'APR de de PASTEF de sans parti euh, intellectuel vendeur de gerte caaf yaa xam koo mënti doon ñoom laay wax le peuple et ce qu'on veut faire. c'est un peu à l'image des assises nationales quand nous avons parlé des consultations citoyennes maanaam fexe ba ay ponk yoo xamante ni jàpp nañ ni ci réew mi instant bii nii ñëpp la soxal parce que ñëpp a ciy wax waaye ku ci wax peut-être da nga def sa commentaire isolé dans les réseaux sociaux ou bien peut-être nga am chance nga ñëw ci ci benn euh, média boo ko waxee te loolu du ñëpp am chance boobu hmm. la majeure partie amuñu chance boobu deuxièmement ci ndaw réew mi waroon na waroon na jouer ce cadre là malheureusement ça ne le joue pas comme on le veut parce que ñoom dañu am seen agenda aussi de de l'hémicycle bu ñuy rencontrer euh, des des ministres on parle de du problème de de la gestion de ce ministère la bi ñu toog rek ne assemblée nationale nañu nañu convoqué euh, euh, euh, benn plénière boo xam ne dañuy wax ci benn rumeur du pays ou bien des choses que dont tout le monde parle pour qu'on puisse épiloguer et voir des solution doo gis loolu toujours y nagenda un hmm. donc ma jàpp na nag bu ñu bëggee def la dialogue du peuple mooy que ne nañu bàyyi askan wi li ñuy ruumandaa di def ay rumeur di wax il paraît que dugg na fi génn fi ñu jox leen kàddu gi ñu waxal seen bopp bu boobaa ñun lu ñu suñu rôle mooy lan le rôle de facilitateur pour pour faire une synthèse de ce qui pour que président de xam ne ah man de même bu fekkee dafa am ay dajale ay kàngam ñuy toog di waxtaan ak man peuple bi seen bopp aussi. am na lu ñuy wax mais bi man je comprends pas c'est qui le peuple. c'est les citoyens. oui oui citoyens yi mënoo gàddu fële sa sa sa sa gerte caaf ñëw ni damay damay damay bokk xanaa di nga nekk di nga nekk koo xamante ni da ngay représenter benn mbootaay bu ndaw parce que nit ku nekk. war nañu ubbi tu n'en as besoin. da nga ubbi da ngeen ubbi bunt bi ku mu neex jaar wax ku mu dañu ubbi buntu bi et c'est une stratégie loolu dina doy waar de. non y a une méthodologie. ah ok parce que dañu ne c'est un dialogue semi présentiel c'est-à-dire du ñu daje ci benn ci benn bërëb ñu ñëpp ne dañuy dialoguer loolu pàcc la maanaam dina am ñu daje ci benn bërëb ne dañuy dialoguer ñeneen ñi ils vont le faire à travers les réseaux sociaux à travers. benn plateforme bu ñu teg ñeneen ñi ce sera dans les marchés. marché <laughs> partout je vous dis. yéen yéen a bëggoon def keroog ndaje siège Malick Gakou ñu génne leen. waaw loolu c' est vrai mais on reste déjà seen ndaje. est ce que sax dinañ leen may ngeen def ko. on reste républicain. pourquoi parce que dañu ne F24 tànku jàmm lay dox. donc soo ko xoolaatee chaque fois que l' état a dit ou l' autorité a dit ça ne peut on s' est pourquoi tey tamit. pourquoi parce que tout simplement dañu jàpp ne mënuloo di woote jàmm ba pare andi fitna te ñun jàmm la ñuy woote li tax ñuy woote jàmm mooy que ne dañu bëgg fexe ba aar Sénégal ba lépp li nit ñi di xalaat mooy Sénégal va aller en guerre civile li nit ñëpp di xalaat lu ñaaw ci biti ñu fexe ba loolu du am pour ñu fexe ba loolu du am nag il faut que nit ñi wax li ñuy xalaat te loolu clin day la pour la presse tey bu fekkee presse dem nañ bay gis seen bopp ne ah ñun kat c'est sauver ou périr il faut que ñu booloo nekk benn c'est parce que sa sant menacés et dans une démocratie presse moom su sentir menacé ça veut dire qu'on ne peut plus l'information juste et vraie parce que ku nekk da ngay wax parce que par rapport ak li ngay li ngay séntu lan moo lay dal ëllëg su fekkee da nga développer tel ou tel euh, volet donc jaloog bi jàpp naa ne jox askan wi kàddu gi la ci ka yan anam nag loolu ay stratégie ñuy définir la méthodologie bi ñuy définir la dinañ am ñaari ponk yu gën a am solo te loolu kenn du ko réere mbir ne biir Sénégal tey nit ñu ngi waxtaan wax mbiru justice te nit ñaa ngi waxtaan mbiru troisième mandat donc jàpp nañu pour le moment ñaari ponk yooyu mooy ponk yu ci gën a am solo dinañ am nag li ñuy wax le discours introductif pour gindi euh, euh, ñi nga xam ne ñoo bëgg a wax seen xalaat li ñuy wax terme de référence pour ñu mën a xam ne ah lii kat ubbil nañu bunt pour ñu mën a wax ci lii ci tel article de la constitution et cetera cetera mais nañu jàpp rek ne lancement kese la ñuy def tey léegi nag suba ginaa suba vous allez voir on va euh, euh, donner les stratégies pour permettre à tout Sénégalais que ce soit de la diaspora yaa xam noonu nga jàng ak ñàkk bañ jàng nga nekk ku def euh, nara arabisant que nga nekk koo xamante ne da nga jàng école nasaraan ñëpp lañ ci boole yemal en daal. nekkuñu ci dimension boo xam ne awma ku ma toogal wala aw ma mbooloo sama ginnaaw kenn du dégg li may wax donc et ça a la démarche des assises nationales parce que les consultations citoyennes c'est que dañuy déglu nit ñi ne leen lan moo doxul ñu wax ñu ne lan ngeen di proposé ñu jël loolu jël ay experts lu ñu wax ci les mêmes questions et on a fait une synthèse et on est retourné vers les populations pour leur dire est-ce que lii ñu waxoon nii loolu ngeen waxoon ñu ne waaw lii la woon noo yokk ci lii wàññi ci lii et c'est finit par avoir le produit assise nationales le livre qu'on a publié sur Harmattan si vous voulez jàpp naa ne euh, li ñu naan lancé ni noonu lay xaw a demee parce que dinañ am ay rapporteurs dinañ am aussi euh, des moments de synthèse dinañ am ay des moments aussi euh, dinañ consulter ñoo xamante ne dans leur expertise am na lu ñu ci mën a mais li ci gën a am solo pàcc bi ci gën a am solo mooy nit ñi dinañ wax loo xam ne président dina ko dégg ci mbirum troisième mandat ci mbirum justice bu ñu wax justice nag dina am ay sous commission parce que thème bi du rek justice dans dans sa globalité peut-être perception bi nit ñi am ci justice dina waaye justice à double vitesse kumba am ndey kumba amul ndey mais dañuy dem dans les détails le le le rôle constitution lan la et cetera et cetera donc euh, dialogue bi daal loolu moo ko wundu bu ñu jàppee le peuple nag. boo leen ci pare buñ ci pare dañuy def benn benn benn synthèse benn mémorandum boo xam ne dañ ko jébbal. Euh, ñi fi ñi ñi nekk euh, au pouvoir pour ñu xool ndax lii euh, lu ennoom maanaa la xëy na peut-être le président de la République dina def benn parallélisme ak résultat dialogue bu mu lancé ak ak ñun suñu dialogue bu ñu lancé